dikkati naa conseil constitutionnel fi mu ne ñu ngay def la leen saf tribune yéen a kaay ne déet sept sages yi la sept sages yi nga xam ne ñoo tënk conseil boobee ñoo daal di violé la nga xam ne moom moo di règle yi yéen bi nan man en tout cas greffe bu conseil constitutionnel ba keroog min wi daal di passé daal di nay jël ay dossier bu déclaration bu candidature yéen a kaay bi samp laaj nag lan moo waral ñu daal di yokku tàng bi ndax dañu ne woon zéro heure moom fu mu jotee ña nga ca beneen bés te beneen bés boobee kenn mënta nangu ma la kenn ak koo mënti doon ngay déposer ay candidat candidature yéen a kaayub bi naan maan ba ci tirage au bi nga xam ne waree son na ko def ni ki tey ci alxamis bi daal dinañ koy dàq ba ci suba ci aljuma ji tur bi naan kon moo tax daanaka téeméer ci ay candidat daal dinañuy déposer seen i candidature l'enquête quotidien naan kon record daal la ñu am ci candidat yi li am 2024 man la mësta am ci ay élection présidentielle daanaka juróom-ñeent fukk ci ay candidat daal dinañuy déposer seen i candidature ngir bokk ci élection présidentielle yi ay doublon moom mëneesul ñàkk ren ji moo taxit ña xam ni daanaka que am nañu si yaakaar ci ñoom dañoo daal di bàyyi fii parrainage citoyen bi daal di jaagar jaagari wuti nag parrainage parlementaire muy bu député yi ngir am yaakaar nag daal di jàll ci parrainage yooyee l'observateur naan kon lu jege juróom-ñeent fukk ci ay candidat daanakas góom la goo xam ni mënees na koo bitër ñi jël alcool jàmb fa goom ngay méttee daal di wax dëgg lii nag ëpp na ci réewum Sénégal te lii mooy dëgg l'évidence yéen kaay nan kon en tout cas laaj wi samp fi mu ne mooy ndax Mouhamed Boun Abdallah nag nekkul dëgg-dëgg candidat président Macky Sall en tout cas Amadou Ba moom ab yaakaar la boo xam ne bu waa APR sampoon ci moom day yankeeku na fayallaahu te yàgg na l'évidence nan maan en tout cas fi ne xalaatu gaa yi moom moo di ndax du Mouhamed Boun Abdallah Dionne dëgg-dëgg mooy candidat bi nga xam ne APR samp na ko daal di koy làq bàyyi ba dernier moment mu naan gaa yi riir leen daw leen bàyyi leen ma fee Amadou dem woteel ma Mouhamed Boun Abdallah Dionne le témoin yéen a kaay nan kon en tout cas keroog ba nga xam ne te la ñuy samp ndëndëm moom candidat bu Benno Bokk Yaakaar bii di Amadou Ba la fa am dafa doy waa APR président maki Sall mi nga xam ne jëf na bay dem moom Sall tàggoo na ne réew mi baay baay ne APR baay baay moom Sall ne leen fi ne bii mooy sama dernier mandat damay tàggoog Sénégal yóbbal moom président maki Sall moomee ba mu waxee ba noppi gars yi dañ koo tàccu sar xolle yuuxu ba maar day taali Amadou Ba ba mu waxee mu mel ni <laughs> selaw daal ci gàttal tàccu yi bëriwul sar xolle yi amul yuuxu yi bëriwul le témoin naan waxtu wa nga xam ne waa APR ña ngay sar xolleel ne tànku président Macky Sall moom génn na Sénégal ka nga nag ma nga fomp ay dàllam fas yéene dugal benn tànk waa APR mel ku koy sewal lii nag bu dee moom la ñu jàppee grande mobilisation ngir seen candidat ñi ngi door seen loxo ci ëkk lan moo tax waa APR fu ñu candidature bu Amadou Ba bi mooy laaj l'évidence naan man ma ne la laaj wi samp mooy ndax du Mouhamed Boun Abdallah Dionne mooy candidat bu président Macky Sall ndax jinne lu mu màggat màggat deseb ngela ju boo xam ne jumal na gune ndax président Macky Sall mii fasul yéene jommal waa APR ak candidature bu Mouhamed Mahammed Boun Abdallah Dionne le témoin naan en tout cas keroog la nga xam ni am na ba ñuy investir Amadou Ba tey na xel de tey na xel ci ne waa APR ci boppam kii mooy seen candidat l'évidence naan sama wax ja rek bàyyi leen xel Mahammed Boun Abdallah Dionne ndax soo moytuwul mooy candidat bi nga xam ne Sall sang na ko tam-tamal daal di ni rëgëj daal di làq bàyyi ba wax neex jëf saf sal ne leen kii nag ndeke moom laa làqoon mooy sama candidat ba nga xam ni moom laa doon nëpp le mandat naan kon dara bu dee Mahammed Boun Abdallah Dionne mooy sa li leer ba leer mooy candidat bu système bi la te sénégalais yi fi mu ne dañoo yor seenu yet ak cravate képp koo xam ne ci système bi nga bokku ñu la koy varaj varajee ba mu saf yéeni bi naan man élection présidentielle 2024 bi fi mu ne candidat bu saf mbaa nga laale mbaa nga taqee ci système lii la askan wi bañ a gis bu ñu nee ci système nga bokk yow moom waajalal xool nees ragee sa bopp te xam ne askan wi duñ la baal duñ la may dara yéeni kaay bi naan man candidat yi nga xam ne jóge nañ te système ñi ya boo gisee Idrissa Seck jàppal Cheikh Abdou Bara Dolly jàppal Thierno Alassane Sall jàppal docteur Abdourahmane Diouf jàppal Agibou Soumaré jàppal Mohamed Boun Abdallah Dionne jàppal Amadou Ba ma la jàppal téyel ndax ñii ci boppam ñooy candidat yu système yi te jàpp leen ni lu ngeen mës a dund Sénégal mu metti leen day la xool ñii nekkoon ci système ma nga ca turbine yéen kaay naan en tout cas dañuy dig ay changement te dara dara ku ngeen mën a fali daanaka coppitu du am 2024 nag moo war a tax ngeen war a xool dëgg-dëgg ñi ngeen di jox seenum réew ñen dénk seenum réew ndax nag yéen a ngi koy dénk politique yoo xam ne laaj sax mën naa tàmbali samp ci ñoom de ndax fi mu ne ñoom politique yi dañoo sañul defal sénégalais yi lu baax wala yi dañ koo mënul ndax am am bee fi nekkul réew mi ko dajee naan man en tout cas Ousmane Sonko investir nañ ko fanweeri fan ci weeru décembre bi dees na samp ndënd ak Ousmane Sonko conseil constitutionnel jébbal na ko convocation ci tirage au sort ba moom docteur Cheikh Tidiane Dièye ñu daal koy confirmer ni ki candidat boo xam ne mënees naa doon bu Pastef gannaaw bi nga xam ne Ousmane Sonko jàllul waxtu woowu moom Karim Dey ma ami allié mouvement maanaa bu Amar Thioune daal dinay dem lëkkaloo jee Karim Meïssa amaar naan dara relevé défi bi rek ndaw Sénégal góor ak jigéen joxante loxo daal di booloo ngir tabax Sénégal goo xam ni mooy ñoŋ Sénégal gi ñu bëgg dëkkee te mu neex a dundee le quotidien le quotidien naan kon en tout cas day gën di miti jàppal ni UCAD moom cours yi nga xam ne dañuy daal di teew dina tàmbali conseil académique ba àndul ci tàmbali gi ñetti fan ci weeru janvier moom ku ci boppam fasul yéen a ubbi lii nag daal di tax étudiants yi ci boppam boobu mooy tuul dinañ tayee la jàng si bés bi le jour xamal ma ni BRT bi tàmbali naa daw ci réew mi ñu fay xaar président Macky Sall fukki fan ak ñeent ci weeru janvier yéeni kaay bi naan man Dakar dem dikk daal di dal loolu toll ci ñetti téeméer juróom-ñaar fukk ci ay bus yu yees yéeni kaay bi nan man du toll ci ñaar téeméer juróom-ñeent fukk ak ñett ci bus yu yees yooyee diggante Dakar ak banlieue lañ koy daal di jagleel lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci bus yi ñu jébbal ko biir Sénégal ak sous région bi moom Ousmane Sylla njiital Dakar dem dikk di xamal sénégalais yi naan leen seen yëfa nañu aar lu ñu bokk askan wi ci boppam mën am fu ñu xëyee di ndaw yi waaye tam askan wi ci boppam mën a am lu leen yombal seen dem ak dikk duñ ci ànd akub coono ndax bus si ànd na confort goo xam ni mar day taali bu ñu ko sàmmee dem ak dikk nu yomb waaye tam ci anam yi nga xam ni moom moo gën turbine yéeni kaay naan man booba gouverneur bu ndakaaru ma ngay jël dogal gu mucc ayib ci xool naka la woto yu mag di dawee fii ci ndakaaru gouverneur bi daal di xam le ni camion yi nga xam ne yu mag la di bàyyeekoo ci yeneen dëkk yu dul Sénégal léegi ña yem ca jam seeni produit mu jëm ca fruit ak leneen loo xam ne bàyyeekoo na ci bitim réew marché d'intérêt national bu jam ñaajo la ñu daal di taxawal léegi Fatoumata ñaaba la ñu jox mu jiite ko tribune yéen kaay naan man dogal boobee ngir mën a muccal ndakaaru ci gros porteurs yi moo tax mu am booba yéen kaay bi mi ngi may xamal ne juróom fukk ak ñeenti ton produit yoo xam ne dañoo yàqu njëg la boo ko xaymaa mat na juróom fukki millions lii la ñu daal di teg loxo ca Kër Massar Sud Quotidien naan man boobu atub 2023 metti na ci sénégalais yi wala diggante màngaan nga xam ne bakkan yu bëri rot nañ ci accident yoo xam ne askan waa ngi ciy faatu waaye tam lakki marché yoo xam ne mi ngi am trafic de drogue bi nga xam ne mi ngi mel ni tulleeg la ci réew mi turbine naan kon déet bul dem ak agresseurs yi nga xam ne daanaka léegi ñooy dogal fii ci ndakaaru ñu daal di defi kuréel yoo xam ne daanaka dañoo daal di méngoo daal di samp diggante ndakaaru mbuur ak Touba ñetti la ñuy doon ci ay moto bu ñu defee seen jëf daal di seey kenn du leen ti ay gët turbine naan kon fi mu ne loo am am sañ-sañ xamal ne à tout moment mën nañoo dal sa kaw diggante guddi ba fajar ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog